Ndiaye. Ndiaye. Hm. dugal minuit jot na. Hm? minuit jot na laaw. ni nga de. baa ngi nii minuit jot na. Ndiaye soxna Femme la wax man kañ laa fi tëdd kii bi minuit jot. soxna Ndiaye heure baa ngi nii. soo mbaa nga lan. heure baa ngi nii de minuit jot na de. minuit. lu xew minuit sax yow. ah Ndiaye. kon maa ngi bëgg a jombati. ah dëgg yëpp daanaka nelaw ma di xaar mi muy jot xam nga ne man bëgg lu ma la gàcc ni jaay. wax oh, nga dëgg tëddal. allé sant la gi foo ko tegoon. mu ngi noonu si buntu néeg bi ni jaay. waaw. ah Amoussou. Eh, ni jaay. ni jaay yaa ngi tëddaat. waat naa ci yàlla soxna di bu dul bu guddiwul woon man uy soxna yow imbécile dëgg nga. ah ni jaay yàlla ma min mi ni jaay lu xew min min. nijaay yow tamit nag minuy jot na. yow maa ngi leen ah, nag man doo ma teg gàcce si digg dëkk bii yow yaa ne dangay nodd ji ay ah, yow tamit njaay dina dem bàyyi la. ay soxla tee nga maa bàyyi. ah nijaay kat li ma wax rek laa def. ah li nga ma wax kat laa def. wi jot na yow tamit minuy indi na ngi nii di. wàññi man minuy minuy gi nga toppee laa. xam nijaay nijaay sa moroom bu góor ngay fekki foofu. ah nijaay <laughs> bu dang mu jiitu la foofu. te yow képp xam na ni yow góor pire nga. nijaay demal nijaay yow tamit gi fàtte naa ko ah moom laa lay wax yow tara téléphone dag ñoo bëgg a xañ suukar bi min la wala nijaay lii min wi la yow na lii onze heures la suukar see jóg mi ngi sonné de ku ko réglé lii lii onze heures la rek nijaay lii réveil yow tamit réveil la waaw kon ba ah yow so nag ay moom ak waga booy booy booy nekk daal li ngay wax yëpp soxna nag amul leer lu may séq ak yow ci ay wax tëddal nag laa la wax man nag tëddal li li nga war a def rek def nga ko ah yow sa sa sa yow kii or rek rax përëm tëddal rek sa yëg day suti xob lu sa ah, yow wax ak sama damay waxtaan ak sama xel soxna ah tëddal ma waxtaan sama xel man xulóowu ma. ah mbes waay yow kenn xulóowu fi. li guddi lañ nekk man xulóowu ma. waaw ah, kon baax na boo génnee tëjal ma buntu. jërëjëf rek. Ah. waaw dañu teg jàmm boo génnee tëjal ma yow xam nga mos boo amoon jom di nga gunge ba mu toll ci mbokk koñu kër ndaw bi. nga def la gungewu wax soxna man nga maa bàyyi wala mënoo maa bàyyi. Ah, baax na nijaay. soxna yow man nga baat bu dem man fii laa koy jàpp nag di xulóog yow ba ba seet boo amul sens tey amay tardé. ah nijaay. wax tey nga jóg dem nijaay dinaa tane aw mu may xuloo si mbedd yow tamit nag marché gi man gàcce laay bañ ala satala gi yow moom mi ni mu yeete onze heures naan ala satala gi mu ngi noonu si buntu nekk gi noonu <coughs> nga ñu moom xam naa xam ma bañ rek lan dee lépp këram ma ko teg nga xam bu doon sama jëfi bopp rek lu may jug heure bi di xëccoo yi noonu fayda xanaa nag amul pësier fu jub heure bi man du tëdd dix minutes. mais noo dem rek. booy booy yéen a ngi cuqati seen baay. <laughs> Macky Sall nag war naa jóg ci réew mi. waaw. ah dafa kër ga woon naa lu si yoon soxna soxna lu si yoon ñett yi. ah Ndiaye damay laajte soxna mën ngaa tëdd wala mënoo tëdd. Ndiaye ma ko jaba. ay aywa booy yàq na seen baay waay. booy jëm dañ maa cuqati eh soxna bay ma. Njaay gaawee ma dimbale ma ngir yàlla. soxna fas billahi fas yow fas naa. <laughs> soxna fas situation bu ma nekk yaa ma ko teg soxna bàyyi ma. ay Njaay.